ci ki nga xam ni moom lañu booleel mu di yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ni moom la wax wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu ngir nga doon yërmande ci xeet wi su ko defee moom yonent bi yàlla daf ko yabal ci contexte boo xam ni boobu nga jàllale ci kàddu lumière ñu dégg ko lu jafe ndax ba mu ñëwee dafa fekk ñaar domine àdduna bi ci jiitu mooy lëndëm beneen bi ci topp mooy réer moom yonent bi loolu la mission am fekke dafa fekk ñaar yooyu yëpp ñu dominer àdduna bi ci jiitu muy lëndëm mooy nit ñi duñu mën a xàmme la alquran di tudde siraatal mustaqim beneen bi ci topp itam mu fekk fi réer mooy nit ñi dañuy topp aada ba noppi di interpreté lu ñu déggul su ko defee nag yonent bi yàlla ni ko ci biir loolu xew yépp mu ni ko na nga fexe ba message bi di message universel bu alxuraan te mu di sama kàddu yàlla ni ko na nga fexe ba jàllale ko waaw moo tax mu jafe woon ci moom moo taxoon la mu ca jànkoonteeg yépp mu jànkoonteeg loolu waaw su ko defee itam lu mu ca déggul moom yonent bi rekk amul waaye fekk na yàlla dénkoon ko la ñoo tuddee ngànnaayu mission ndax yonent bi ci qualité yi mu denc te yàlla seedeel ko ko wa innaka la ala xuluqin azim yàlla seedeel ko ko ni ko qualité yi nga denc qualité yooyu moo gën qualité yépp ni ko itam sa jukko moo gën a rafet jukko yépp ba noppi yàlla ni ko waxoo ngir sa bakkan waaw wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yàlla ni ko li ngay wax yépp dafa fekk ni wahyu la waaw mu ni ko bu jóge ci man ma wax loolu ko waaw waaye fekk moom yonent bi li muy denc lépp ak encouragement yi nga xam ni borom bi ma ngi koy jële ca xayb di ko ko indil ci rooxam pour encourager ko ci mission fekk na moom yonent bi ku bare woon kersa la waaw moo tax mësul bëgg mukk wax ñu wax ko ni ka la nga wax amul waaw te yàlla indi woon na ko moom yonent bi ci biir peuple boo xam ni seen réer tollu na ci lu mu wax rek ñu ni ko mënul demee noonu waaw te fekk na moom ma ngeeg nubuwaam ñu koy wax yu waaw ñi koy weddi ñoom fekk xamuñu sax la leen di fekki suba waaw fàtte nañu sax lay seen yéene ci seen dund waaw ñu ni kon ñoom xamuñu seen dund na mu tëdde ba noppi bëgg weddi yonent bi te yonent bi moom yàlla wax ko ni ko dund yi nañu war a tëdd yépp pour ñu dugg aljana yow yaa ko war tëral waaw mu nekk ci biir organisation boobu waaye kerse gi rek dominer ko ak justification yi yàlla ni ko nag sa priorité mooy sa mission waaw yàlla ni ko sa priorité mooy sa mission beneen bi aussi yàlla ni ko yudillu man yasha wa yahdi man yasha na nga ciy bàyyi xel yàlla ni ko may jubal ku ma neex maay dëngal ku ma neex waaw waaye nag yàlla ni ko dinaa la jox benn ngànnaay gànnaay bi mooy fa intawalaw fa xul hasbi waaw yàlla ni ko fa intawalaw fa xul hasbi waaw yàlla ni ko ñi ngay woo mu ni ko guddeeg bëccëg mu ni ko te bëggal leen njëriñ ci li leen di àggale ci man yàlla ni ko buñ la dëmmoo yow bañ ni duñu wuy ci sa woote nee na ko fa xul xasbi waaw na leen wax ni doyloo nga ma man yàlla te doy naa la waaw yàlla ni yonent bi suñ la nanguwul wuy si na leen wax ni doyloo nga ma man yàlla te doy naa la waaw moo tax mu ni ko fa in tawalaw fa xul xasbi laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim loolu mooy yàlla daf ko wax ni ko li ci des mooy da ngay li tax ma doy la waaw mu ni yonent bi danga leen di wan lu tax ma doy la sama grandeur man yàlla mi nga xam ni may la créateur bind leen bind la yow ci loolu ngay basé ba yëg ni su fekkente ni doyloo nga ma rek ma nangul la ko soxlootoo keneen waaw moo tax mu ni ko fa in tawalaw fa qul hasbiya waaw na nga wax ni doyloo nga ma te doy naa la buñ la wanee gannaaw ñoom mu ni ko nag ci doyloo boobu bu ñu laajee ni lu tax nga doyloo yàlla yàlla ni yonent bi lii sa justification mooy dafa amul kenn koo xam ni mu ni ko mën na ma dendandoog man wala mu tollook man moo tax mu ni ko waxal ni laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim waaw yàlla ni ko loolu sama mérite la ak sama melokaan man waaw looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu jàngal ña mu àndal ngànnaay boobu yàlla dénkoon ko te ki la domine àdduna moom yonent bi waaw ci ngànnaay boobu ca la réussir mission ca ngànnaay boobu même victoire éclatante bi alxuraan di tudd ci inna fataxnaa lak fatxan mubinan ca ngànnaay boobu la victoire éclatante ba basé ndax mooy base solide bi te ngànnaay ba moo doon fa intawalaw fa xul xasbi mooy doyloo bi mu doyloo yàlla waaw parce que doyloo yàlla solo bi ci nekk boo defee analyse bi li ngay njëkk trouver comme réponse ci équation bi ñu tëral sa kanam mooy bila yàlla dee bind kenn nekku fa woon di ko ci jàppale boobu ngay njëkk a trouver comme réponse pour résoudre équation bi mooy bi la yàlla dee bind kenn nekk fa woon di ko ci jàppale waaw boobu mooy benn bi jiitu su boobaa nga xam ni kon boo ko doylowul moom yàlla rekk juum waaw ndax comme bi mu lay bind kenn nekk fa woon di ko ci jàppale kon boo ko doyloowul kon mooy wóoluwoo ka nga xam ni moo wéetoo nag yow démb ba tey soogay ñëw waaw boobu mooy lii tax nga résoudre équation bi li jiitu sa réponse bi jiitu lool la waaw mooy bind bi la yàlla bind démb te ba mu lay bind kenn jàppalewu ko waaw nga wéetoo nag moom waaw moo tax bu yàlla delloo ba alamul arwaax taxaw mu wax ni alastu bi rabbikum xaalu bala mais laaj la ndax du mooy sa borom ba noppi wax ci résonance spirituelle bu yonent bi sallallahu alayhi wa kàddu gi jaar ci rooxam mu wax ne ñëpp répondre bi nangu nañu ni maay seen borom mais loolu sa waru gar la sa waru la ci nangu ni yàlla mooy sa borom ndax moo la bind te kenn jàppalewu ko ci mu dellu ci hasbiyallahu doyloo bi mu wax yonent bi suñ la wanee gannaaw na nga doyloo yàlla waaw waaye beneen bi mooy yàlla wax ni bu ma la indee ba jox la bakkan ngay dund ci àdduna lu sa dund yaatu yaatu mu ni na nga fexe ba di wéetoog man waaw na nga fexe ba di wéetoog man kooku benn dimension la ci wàllu zikr benn dimension la ci wàllu zikr ndax dimension ci wàllu zikr ci wéetal yàlla mi ngi dellu ci ala bi zikrillahi ma inul qulub loolu mooy ki am dalu xol ci diggante mag yàlla te balaa dalu xol nga di ko am da ngay fexe ba jege yàlla nekk xaritam waaw te pour nga nekk xaritam mooy da ngay fexe ba moom yàlla li mu santaane nga di ko def waaye lim la moytuloo it nga di ko moytu boobu benn dimension la ci wàllu zikr ala bi zikrillahi tatma inul qulub waaw boobu mooy fexe bi ngay fexe ba ñu wax ni wéetal nga yàlla am quiétude waaw bi ñu tudd te wax ni mooy wéetoog yàlla dimension am koy àttee ci wala zikrullahi akbar waaw wala zikrullahi akbar waaw mooy bii àtte àtte bi nga xam ni mooy wéetoo nga ak yàlla léegi nag ci cadre boobu yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy fa in tawalaw fa xul hasbi mu wax ko buñ la wanee gannaaw waxal ni doyloo nga ma mais doyloo boobu moom la yonent bi def analyse bi gis ni même su fekkoon yàlla tudd ko woon sax lu war jàmbil waaw ndax bi ci jiitu mooy bi ko yàlla dee bind kenn jàppalewu ko ci waaw beneen bi itam mooy yàlla bi mu ko woowee ca alamul arwaax wax ni alastu bi rabbikum xaalu bala jaare ko ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rox ya ko doon dégg yépp tontu ni bala loolu seen waru gar la woon ndax yàlla moo leen bind moo tax yàlla bu la indee ci àdduna nag indi condition yi condition yi bi ci jiitu mooy yàlla wax ni na fexe ba comme maa wéetoo woon ak yow démb na nga na ma wéetal tey te wéetoog man ndax maa wéetoon ak yow démb mooy démb ba ma lay bind kenn fekkewu ko ba ma lay bind kenn intervenir ci waaw mu ni ko kon comme ñëw nga ci àdduna yàlla ni nag ma wéetal wéet boobu mooy indi dootoo mën a bokkaale ak yàlla inna allaha la yaxfiru an yushrika bihi waaw yàlla ni danaa jéggale lu ne waaye bokkaale moom duma ko jéggale ndax lu tax dafay gis ni manque de reconnaissance la dafay gis ni bu bokkaale ñëwee manque de reconnaissance la ndax moom borom bi moo wéetoo nag yow démb bind la kenn intervenirul mu wax ni kon boo ñëwee ci àdduna itam mu ni ñu ñu ñu teg la fi ak bakkan mu ni nag ma wéetal loolu sa waru gar la boo ma wéetalee ba noppi nga fexe nag wéetook man moo tax ñoom ñu doon dégge baatu euh, la tuddee wéetal yàlla ñu wax ni boo indee laa ilaha illa waaw amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu jëdi jëriñ ñàkk jaamu jëdi lore ku dul yàlla ñu ni yaa ngi wéetal yàlla ñu ni waaye booy wéetoog yàlla danga naan laa ilaha illa allah ni ko alquran waxe ni fahlamu annahu laa ilaha illa mooy dara nekku fi lu dul yàlla waaw ndax alxalqu kulluhum mazahirullah waaw kooku it dimension la ci wàllu zikr waaw moo tax tolluwaay la mais tolluwaay yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tënkal ko ni ko baat bi sa ngànnaay mooy hasbiyallahu maanaam mooy nga doyloo yàlla mu ni ko ndax ñoom dañ la wan gannaaw mais fekk ñett dana tax ñu wan la gannaaw bi ci jiitu yàlla ni ko dañ la wan gannaaw ndax ñoom du ñu mën a concevoir ñu xëy di bokkaale wut seen ay trois cent treize yàlla yett seeni statut nga xëy ñëw ni leen allahu ahad ni leen yàlla kenn la waaw yàlla ni kon dañ la wan gannaaw ñenn ñi basé ci loolu waaw wax ni mënoo xëy ñu am suñu yàlla yu bare yow muhammad nga xëy ñëw ni ñu yàlla du du ñu bare ñii kenn la waaw yàlla ni ko kon dana am ñu la wan gannaaw fekk loolu la def seen base ñoom waaw beneen bi it yàlla ni ko dina am ñi la wan gannaaw te fekk ñoom dañ la xeeb ci mission bi te xamuñu ni yàkk àtta waaw te loolu Abu Lahab wax na ko ak ñenu amoon waaw ni yàlla bu doon yabal dana yabal notable dana yabal ku am alal dana yabal ku mel nii ku màkk déglu nangam nangam waaw yàlla ni leen ñoom mën nañu tànnal seen bopp seen xol li muy gëm ak lim dul nangu ndax kenn ku nekk mën naa la bàyyi sa philosophie ba ëllëg booy dajeeg sama yërmande wala ngay dajeeg sama mer waaw mais nag yàlla ni mënuñu ma tànnal man yàlla ki may yabal waaw kon gis nga yàlla leçon de sagesse bi mu leen jàng waaw nangu na ñoom ñu tànn su leen neexee gëm su leen neexee weddi waaw parce que boo gëmee dafa am foo jëm boo weddee dafa am foo jëm waaw kon yàlla foog mu may leen ñaari option yooyu yëpp bu leen neexee ñu tànn bu leen neexee ñu gëm bu leen neexee ñu weddi waaw bu doon ku gëm du am fu mu jëm ku weddi du am fu mu jëm kon yàlla mën na leen bañ may option boobu waaye comme yàlla bind na ñi gëm am fi ñu jëm ñi weddi am fi ñu jëm mu ni kon naa leen may option bi bu leen neexee ñu gëm bu leen neexee ñu weddi waaye nag yàlla ni mënuñu ma tànnal nag ki may yebal waaw kon ñoom ña nekkoon màkk am nañu droit gëm ñii am nañu droit weddi waaye ñu demee ba wax ni yàlla bu doon tànn na tànn notable na tànn ko am ala yàlla ni yonent bi dana am ñu la wan gannaaw te fekk loolu lañu ñu basé waaw ni moo tax ñu lay wan gannaaw waaw mënuñu nangu ma yónni la waaw mënuñu nangu ma yónni ku mel ni yow waaw te fekk boobu yonent bi moo leen gën ci qualité yépp moo leen gën ci fànn yëpp yàlla ni ko kooku it ñaar la ci ña lay won gannaaw yàlla ni ko nag euh, ñu mujj ñi muy ñetteel ñi nga xam ni euh, ñoo lay wan gannaaw mooy dañu dem ba yëg ni sa idéologie bi ngay doxe du arranger seen business waaw sa idéologie bi ngay doxe du arranger seen business waaw yàlla ni ko mooy ñetteelu groupe gi lay wan gannaaw waaw te loolu bi yonent bi demee Médine feeñ na fa bi yonent bi jógee màkk ba dem Medine feeñ na fa am na ñu ni woon nanu ñëw rek euh, ñu mbubboo ci ñi koy teertu ñu taxaw waaye xam ngeen ni Muhammad mi ñëwam bii du nu arrangé ñun ñi nekk Medine ñu ni lu tax ñu ni ndax suñu jaam yenu amoon jàpp ñun ni ñoo leen gën fuuf bu subaa bu fi defee ba dana wax ni kenn ku nekk mbindeefu yàlla la dana dem ba jox cër sax cër boo xam ne ñun joxuñu ko woon sunu jaam yi nu amoon Muhammad dana leen jox cër boobu am na ñu ni kon nañu taxaw nii rek comme groupe gi taxaw nañu kay di ko ter nañu taxaw rek waaye leer nañu ni sunu jaam yi ñàkk nañu leen waaw moo tax am na ñoo xam ne bi ñu gisee yonent bi di ñëw bay waaj ak si Médine tertu ba lu muy rëy rëy am na ñoo xam ne ca diggante laps de temps boobu dee nañu seen jaam yi jox leen ordre ni leen bu leen fi taxaw dellu leen kër ga waaw ndax dañ doon bañ boobu chaîne yi ñu taxawe woon ñu téye leen yonent bi ñëw gis loolu ndax dañ ni bu koy gis di ko dindi kon gis nga ñetteelu kuréel gi yàlla waxoon yonent bi ni ko daan la wan gannaaw ndax sa idéologie dafay yàq seen business kon loolu dikk na foofu léegi nag yonent bi bi ko yàlla tëralee loolu lépp yàlla ni ko nag yow am nga ngànnaay sa ngànnaay mooy wax naa la ni fa in kon mooy ñooñ dañ la wan gannaaw xam nga yàlla du juñ ji wala muy wax loo xam ne rek dafay foog déedéet yàlla day xam nu mbir mi di deme yàlla day xam ni mbir mi di demee mu tëralal la avant que biir bi di la ëpp doole moo tax yàlla ni ko nag comme daañ la wan gannaaw faqul hasbi allah waaw bu ñu la wanee gannaaw wala ñu weddi la te tuddal naa la kuréel ya kenn ku nekk ak intérêt mu ni ko nanga wax ni doyloo nga ma man yàlla te doy naa la waaw moo tax nag gis nga doyloo yàlla boobu bi ko yonent bi di jàngal sahaaba yi lool la leen wax mu ni leen lenn la mën a gis nee na nit ki mën a nekk ci àdduna ba noppi am jàmm ci digganteem ak boromam mooy bu ko doy loowee waaw moo tax benn xakim wax ni àdduna bi yépp nee na suñu xëyoon dajaloo waaw mu ne àdduna bi yépp nee na góor ak jigéen mag ak ndaw nit ak jinne nee na ñu di la gërëm di la tagg di la seedeel jukko yu rafet nee na te yàlla seedewul ci yow loolu nee na seen seede googu lu muy rëy rëy du la jëriñ dara waaw fekk kat nee góor ak jigéen mag ak ndaw nit ak jinne ñëpp nga taxaw nee na di la tagg di seede ci yow lu rafet nee na fekk yàlla àndul ca seede boobu wala nanguwul la ñuy wax mu ni seen seede boobu du la jëriñ dara waaye xakim ba dellu wax ni su àdduna yëpp it mobilisé woon muy góor ak jigéen mag ak ndaw nit ak jinne xale ak mag. nee na nu di la rëbb ak di la wax wax ju ñaaw te nee na yàlla wax ni ku baax nga nee na seen loraange yooyu seen kàddu yu ñaaw yooyu du la wàññi dara waaw mu dellu ni kon loolu su amee nee na kon li tane mooy hasbi allahu nee na nga doyloo yàlla waaw parce que seede yàlla mooy priorité bi te loolu la yàlla doon fësal pour wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boobu mi ngi ci biir euh, tourbillon boo xam ni li mu ci am ci ay noon kenn xamul na mu toll te ña noonoo noonoo ko ndax dañ ko xamee lu bon mais dañ ko noonoo ndax mission universelle bañ ko dénk waaw fu mu dem pour wuti réconfort rek ñu attaqué foofu waaw ndax yàlla mooy defe noonu yàlla mooy defe noonu waaw kooku missionnaire yëpp xam nañ ko gis nga yàlla bu la dénkee mission la muy bëgg mooy sa base sa bët sa xalaat sa xel yëpp. bul am confiance ci lu dul moom yàlla waaw moom yàlla dafa fiir waaw moom yàlla dafa fiir day bëgg confiance mission ba yépp bu ko teg ci nit teg ci moom waaw moo tax boo wutee réconfort fële dafa ni moo koy doxal rek yàlla attaqué lu foofu waaw xoolal yonent bi ba mu demee Taïf dañ ni ko woon boo demee Taïf dana tane xale yi génn yore ay doj ay mag ngemb leen naan sànni leen ko ñu di ko sànni waaw parce que boobu yàlla dafa bëggoon. yonent bi su demee ba xam ni côté yëpp benn baaxu ci mu basé ci ne xasbi allahu bi ma yàlla waxoon ni fa intawalaw faqul xasbi allah naa ko doyloo moom waaw moo tax ñoom bi ñu ko attaqué traité ko lu dekk waaw traité ko ko euh, d'imposteur wax ko waaw moo tax jamono yële passé pour wax la ni yàlla di def yonent bi mooy gën gi mbindéef le meilleur des êtres créés waaw qualité yi yonent bi am kenn amul qualité yooyu waaw jukkoom kenn mënul jukkoo woo noonu ni mu tabe woon ni mu yéwane ni mu baaxe mais gis nga bi tubaab yi defee seen étude ñu ni dañuy xool benn nit koo xam ni nee ñu jàpp nañu nit kooku àdduna ba mu daj li ñu ko wax wax ju ñaaw mësuñu ko ko ñu ko wax kenn dañu ni la profet Muhammad la ñu gis waaw te mooy gën gi mbindéef tubaab yi ñoo def seen étude ñu ni la profet Muhammad paix salut sur lui moom lañu gis muy nit koo xam ni luñ ko wax ci lu ñaaw mësuñu ko wax benn mbindéef bu yàlla bind waaw te moom mooy le meilleur des êtres créés waaw moo gën ki mbindéef looloo tax nag yàlla pour préparer ko ci loolu moo tax yàlla ni ko ñii bu ñu la sonal ñu nee yow doo yonent man nee naa yonent nga kon doy na. yàlla ni ko bu ñu ne eh, imposteur nga da ngay naxe man nee naa naxe woo yaasin wal qur'aani al hakim innaka la min al mursalina ala siratin mustaqim yàlla ni ko yow ñi ma yónni woon ñu wax ni tey ñoo taalibe ñooñu la ñu ñoom muy taalibe Moussa alayhi bu ko juif yi waxee bu ñu waxee ni ñoom taalibe Isa ibnu Maryam lañ chrétiens yi wax ko ba pare ñu bañ la yow Muhammad te xamuñu ni fi Isa teg tànkam ak fi Moussa teg tànkam yow foofu nga teg sa tànk yàlla ni ko kon ñoom ñoo réer waaw waaye mu ni ko heure boo dellu see toog rek na nga xam ni soo ma doylowee man may doon ki nga xam ni maa lay apporter solution yi ci bépp problème bu ñu la mën a teg waaw moo tax luñ ko mës a wax demoon na ba ñu ni ko da ngay fexe seeti notable màkk yi waaw dem fexe seeti leen dem seeti euh, borom tur yi dem seeti borom daraja yi waaw pour lan pour bu la nit ñi weddee sax ñoom ñu mën a wax. waaye bu ci yonent bi dee xalaat yàlla ni ko jarul ngay seeti kenn parce que boo demee li nga indi ñoom duñ ko nangu dégg te yow la nga indi mooy kàddu dëgg waaw kon yow waxal sa kàddu dëgg ba nu adhéré ci buñ ci adhéré wul yàlla ni ko su boobaa loolu ci ñoom lay dellu looloo taxoon bi yonent bi amee ak ñoom réunion Abdullahi ibnu Maktum ñëw yàlla ni ko mooy priorité mooy priorité ndax moom. ñëwam bi mu ñëw mën na bëgg ñu defar xolam mën na bëgg leer mën na bëgg jublu ci siraatal mustaqim te ñi seen réunion ba la muy rëy rëy mooy séparer dëkk ba xool fi marché bi yam kuy jaay ca marché ba nangam nangam pour conflit ba waaw te yàlla ni ko nag suñ la ba dénk kàddu goo xam ni kàddu dëgg la ku bañati dëgg rek di ngeen entrer en conflit waaw loolu moo indi jihaad mais jihaad ba du woon pour rek euh, semer la ñoo tuddee terreur wala wàllu violence jihaad ba la ko indi woon mooy kàddu laa ilaha illa allaahu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di véhiculer ak ñi mu àndala ñu war a taxawal drapeau islaam te ñu ni drapeau islam du fi taxawe waaw loolu ko indi waaye ku xam yonent bi xam ni du nitu violence xam du nitu violence ndax koo xam ni balaa ñuy xare recommandation yi muy joxe rek tax na war nga laaj ndax xare euh, euh, jarati na ko yonent bi balaa ñuy xare recommandation yi muy joxe da ngay laaj ndax xare jarati na ko ndax dafay taxawal saxaaba yi ni leen bu kenn taal kër jàmbur te te ñee bu ñu jekkoo kër yi waxuma taal waaye kër yaa ngay boy ni bu kenn rey benn jigéen ni bu kenn rey benn màggat ni bu kenn rey benn xale te ñee ñëpp xooluñu lool waaw ni ku nangu dugg ci si diine buñ lay rëññee ni ni doo fi dugg ndax dañ la jekku bàyyi leen ko mu dugg ci diin te recommandation yooyu muy joxe yëpp ñële xooluñu lu dul dal leen ci kawam exterminer leen embargo leen moo tax ñu ni yonente bi du nitu violence waaye nag yàlla moo indi kàddu goo xam ni laajoon na mu samp drapeau islam te wax nañ ni drapeau islaam du fi samp kon il fallait ñu jàmmarloog ñëw te loolu yëpp nag dafa neex yàlla mais base bi mu doon doxe ndax tey suñ doon wax Euh, ci wàllu mental ñu wax ni du subir mukk pression pression bi li muy bari ci yonent bi dafa mel ni yëgu ko mu ni baat bi taxoon yëgul dara ci pression bi ñu doon jàpp ci moom mooy baat ba ka yàlla waxoon fa in tawalaw fa qul hasbi allah maanaam doyloo gi mu doyloo woon yàlla moo tax moom lu ko nit ñi mës a proposer pour yàqal ko wala lu ko nit ñi mës a indil bu xoolee doyloo ga mu doyloo yàlla rek yàlla la cay déglu dootu ci dégloo déglooti euh, mbindeef su ko defee déglu ba muy déglu yàlla daf kay doy ba tax na ñiy jàpp ni mettital nañ ko moom yonent bi fekk yëgul méttit ndax place ba mu waroon yége méttit def na fa leeru yàlla waaw mënoo àgg ci yàlla lu dul àggoo ci maqaama boobu waaw mooy place bi ñu foog ni naqar ma nga fa da ngay raxas palaasu naqar ba ba mu set def fa leeru yàlla place ba ñuy tuddee méttit a nga fa nga raxas méttit ba ba mu set def fa leeru yàlla finalement jëmm ja day dem ba buy doxati concerné borom bi lay doon waaye dootul xoolati lu mindeef di xalaat moo tax yàlla ni ko fa in tawalaw fa qul hasbi allah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim yàlla nañu yàlla yàgg ommat ci tànkam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu